mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di jotal nouvelle bu neex muy génnu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ndao na ko soppee partagé ku nekk xam ne génn na ci jàmm alhamdulilah rabbil alamin dara dalu ko nag mu sant yàlla bu baax ndax yàlla dafa def mu fekk fa ay soppe yu dul jeex ci kaso bi ñu nekk ak moom nekkan bu rafet ndax xam nga nitu nit ku yàlla gërëm du torox fenn waaw foo ko yóbbu yaakaar na fa lay toroxee rek foofu lay defaroo xam naa dinañ ci gën a ñëw gën cee yaatal insha allahu taala waaye daal lii xibaar bi mooy génn na génn na ci jàmm alhamdulilahi rabbil alamina li ci nekk yëpp ci biir nag lépp lu ci war a génn te ñu war ko man a génn rek dinañ ko génne ba ñëpp xam li xew insha allahu taala waaye daal lii xibaar bi tey mbégte képp koo xam ne soppeem nga woon te ñun ñi am nañu ñu daan woo di ñu ci wax ne na ngeen ci wax lii na ngeen ci wax laa ah, ñooñu ñëpp xeet gu ñu xeet ci rek moo waral ñu daan ko def kon bu ñu yégee ne génn na ah dinañ ci kontaan ñaanal ko yàlla bu baax yàlla jàppale ko ndax nitu valeur la nitu euh, diine la kilifa la guy bay waaram ci diine ba mu ko xamee ba léegi ci loolu lañ ko xam bari na ay ñaata nit de seen diine baax jaar ci moom kooku nag su ko yàlla nattoo lii du moom la ko njëkk a nattu nattu na ko ñu ko gën foofu waaw nattu na ko ñu ko gën foofu kon boo ko joxee rek dafa am lum ko nammaloon ñu ngi ko ci ndokkeel ci génn gii mu génn ci safar gi nga xam ne ci la turandoom am li mu am lépp waaw kon alhamdulilah rabbil alamin nag xibaar baa ngi noonu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane yàlla libéré na ko jërëjëf